bul delloo sunu borom subhanahu wa taala ci alquran mom moonu xamal ak bopum sayidna muhammad alayhi Salatu Wassalam daal ne kooku mooy seenu royukaay ta moy yonente bi nga xamni mom la sunu borom subhanahu wa taala tan ko ci mi def yi ba tax mu ni man yittihi rasula fa daataahu allah képp ku topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na xam ne topp na yàlla yàlla te ne qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumullah su fekkee da bëgg yàlla da ngeen may topp su ngeen ma toppee rek yàlla bëgg leen kooka mooy ka suñ borom waxoon ni wallaahu yaxsimuka min annaas yàlla moo lay musal ci nit ñi kenn du la mënal dara koko moy ko suñ borom waxon ni annabi awla bil muminina min anfusihim yaronte bi alayhi salatu wassalam mo len gëna a ci sen bop mooy ko borom waxon ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatima nabiyyin moy ka nga xamni sun borom subhanahu wa taala da ko magal ba ñaare bu koy wo ci alquran du jaar ci waye baatu ayyuha lay dinañ ci alquran mu koy wona ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabi ta yana yeneen ya gis na ne dañu wax ya ibrahimu ya musa ya isa waye magal go xam magal nako yaron sallallahu alaihi wasallam ak daraaje jo xam jox nako ko motax ñaare bu koy wo di jëfandikoo ko bar yoy ko defee buñ ko bëggee xam dëgg-dëgg yi mooy ko suñ borom waxoon ne laqad jaakum rasulun min anfusikum asiisun alayhi ma hanitum harisun alaykum bil muminina raufun rahim dalaati woon ne ko li yaxfira laka llaahu wala inna fataxnaa laka fatan mubinan li yaxfira laka llaahu ma taqarra min sanbika wa ma taqar mooy kam ne woon it wa innaka la ala xuluqin hasim mooy kam ne woon wa inna laka la ajran xayra mamnun kon yooyu yëpp ay aaya yoo xam ni sunu borom subhanahu wa taala moo ko wax ci alxuraanam ji di ci tekkale màggaay yonente bi sallallahu alayhi wa ñu gën a xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kanit manees na koo laaj sayxul xadim radiyallahu anhu bu demee ci xasida gu gàtt rek bu ñu tuddee al masrafu saafi fi madihi mustapha kaafi wax na ca lu baree bari nga xam mi ko tuddé nana way bi nga xam day aji sel ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne aji feewu jar te loolu suñu borom moko waxon waxoon ni alaysallahu bi kaafin abda bu demee ja biir téere ba dañ lay fekk sayu khadim nan alhamdulillahi moolil xifsi wa safari man kana fi hadarin aw kana fi safari maa ngi sant yàlla mi nga xam moy méngale ak wattu ak tuufu képp koo xam ni dafa nekk ci teew wala mu nekk ci tukki suma salaatu bi taslimin yuqaarinuha ala lati ci ahya sawil fikari nee na jullee sëlmal yàlla nekk ci nga xam ni kooko ñu tagg ko lottal na waroom xalaat yi maanaam lu am am am xel lot na ci tagg Seydina Muhammad alayhi salatu wasalaam ñu ne ko kooka mooy kan ki nga xam ne kenn mënu koo tagg mu ni muhammadun sayyidul atbaahi wa ru'asa al mustafa al muttaba saafi min al kadari nee na kooka mooy sangu way topp yi mooy kilifa yi mooy kanu tànn ka nga xam ni ku sell ci ay nax-nax saakal karimu lesi ma zaala muntaxaban min abdalin naasi mus ansaahu xadari nee na kooka mooy ka nga xam ni mooy aji tedd ja nga xam ni musta dañ di ku tànn muy ki nga xam ni moo gën ci nit ñi diir ba ko suñu borom subhanahu wa taala sosee nabgun karimun salilun min karimin salilin min kiraamin xiyaarin saadatil usri nee na mooy soppe ba mooy ku tedd ka nga xam ni dafa càllaloo ci ñu tedd ci ay tànneef te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne ana xiyaarun min xiyaar xadistu fi min siraafin ma ata ahadun minhum bi faahisatin turwa anil asari nee na kooku mooy ka nga xam ni dañ ko tànnee ci ñu tedd nga xam ni kenn musu caa def ay ñaateef yu ñuy nettali bal kulluhum min nikaahin la sifaaha laha bal kulluhum min nikaahin la shafaa kama hakkaasa wal xilmi war xilfaani fi siyaari nee na ku ne daal ci yoon lan ko am comme ni nga xam ne dana ko waroon xam-xam yi nettalee ñu ne ko ki ngay wax mooy mu ni muhammadun najlu abdullahi man nasabo li saybatil hamdi najli haasimil wasari nee na kooku mooy muhammad du doomi abdullah di doomi saybat al hamdi saybat al mooy abdul mutalib di doomi xaasim noonu la ko limee baag ca seen mbaam ji ñu tuddee adnaan nga xam ne ca la yam ñu delluwee ni wa wal habibu lasi min ajlihi xuliqat xalaayiqullaahi kal amlaaki wal basari boo xamul ki may wax de mooy sorta bi nga ni moo tax suñu borom subhaanahu wa bind mboolem mi def yi moo xam malaaka yi la moo xam nit ñi la wakas samawaati wal ardina xaatibatan wal barri wal bahri misla riihi wa sajari nee na mooy ki nga xam ne moo tax sunu borom subhaanahu wa taala bind asamaan yi moo tax sunu borom bind suuf yi moo tax sunu borom bind jéeri ji moo tax sunu borom bind géej gi moo tax suñu borom bind ngelaw li moo tax suñu borom bind garab yi waakasal jinnu aydan mah bahaimiha wakal jamaadaati mislan naqti wal xajal nee na mooy ki nga xam ne moo tax suñu borom bind jinne yi bind bahima yi bind jamaadaat yi bind gàncax yi bind xeer yi ñun nóori yi kullu nóorin saatihun bi sanaa نور النجوم ونور الشمس والخمر نانا دار لير يونتبي صلى الله عليه وسلم مولم لير تيران بايكو مو خم لير وير ولا لير جاند بلا ولا لير وير ولا وهو القياس الذي من اجله رحمت خلائق الله بالامثال للمطر نانا موي خيت ليكات بيغا خامني moo tax sunu borom subhaanahu wa taala yërëm yi ba tax muy wàccee taw bi wa huwa alkarimu lasi lawlaa himaayatuhu la jaati naaru ahlul kufri bi sarari nee na mooy aji ji nga xam ni bu dul ko woon ak kaaraangeem sunu borom subhaanahu mu jëlee ca sawara ay fer ñeent tàmbali cee mbugal yéefar yi waaye daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tax na loolu amut ndax moo nekkoon wa maa kaana laahu li yuhasibahum wa anta suñ boroom du ci buggal kenn te fekk yaa ngi ci seen biir kon sunu sukkandikoo ci aaya yi nga xam ni moom lañu wax ak li nga xam ni moom lañu Sayxul Xadiim radiyallaahu anhu jot a wax danañ ci xamee màggaay yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax sayum xadim radiyallahu anhu dëkkee woon koo tagg ak dëkkee koo liggéeyal su ko defee li ciy wàllam moom sayum xadim radiyallahu anhu ci wàllu tagg ñu ñëw ci dañ fekk mu naan lil Mustafa li ci turaam lahu salaatu wa salaam mahamtidaayi kullaha murumtu min na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man dama warloo di ko tagg ci mépp at xilaami alayha daynu ixdaami nihmati wa ixdaamu anqa dalaali wa wasmati nee na samay xalima dama warlu ci moom bor boo xam ni dama koy liggéeyee yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mooy li nga xam ni moo dàq samag léer moo dàq yëpp samag ràgg loo allaya li wajjihi llaahi daynu sanan mustahsanin kulla haamin yowma yuxtaar nee na yonent sallallahu yoral naa ko borom tagg woo xam ni tagg wu ni rafetal ci mépp at loo allaya li wajjihi llaahi min sanati ilartifaahiya am daawun turaaxa dadaa nee na at nekk rek waral naa yonent bi sallallahu alayhi ay tagg yoo xam ni day yëkkatiku yoo xam ni dañ ko gis mu nekk yu limoo limu lowoo alaya xadaaya singri naafilatan li wàcc rabbin bi xubbin xat baral kabira nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam dama ko war addiyee yoo xam ni addiyee woy lay doon addiyee tagg lay doon ma koy def nag ngir sunu borom subhanahu wa taala لو الدهر أمداني قديما مخاطبا ولم قاد في أربعين أربعون هلي نانا yonent bi salaay salama waraloon naa ko ay tagg sama jiiru jamono ma nekk ab liggéeykat boo xam ni damay xaada bante ak moom ñun saan tasam duloo fi kulli ma sanatin daynam ti daayin bi ab yaatin xaribaati nee na waraloon naa ko ci mépp at borom tagg boo xam ne dama koy def ay bayit yoo xam ni yu tumuranke la yu rafet rafet la xaddim tasantuloo fi kulli ma sanatin maa daama xaqli ma ngi day nal xadiyaat yi nee na waral naa ko ay tagg ci mépp at li feet maa ngeeg samam xel dama koy yoreel borom ay addi yoo xam dama ko koy jox di ko ci ay tagg yamini alayha day nu xatin bi xidmati li sil madinati sahadi. nee sama ndayor bi warul na ci ay tag yo xamni day dàq ay ngeerum nga xamni ne dama ciy diggalee yonente bi salaay wasallam mi nga xamni moy borom madina yamini alayha day nu xattin yuri sanan safihin kafani doona dahri sawil bax neena sama ndayor bi waroon naa ci bon boo xam ni day wane sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo daxaru niyaati wa xilmi wa xidmati wa ruuhi wa kulli bila sakkali nee na mboolem diiru jamono bi sama yéene sama xam-xam sama liggéey sama ruu sama yaram sama lépp jox naa ko yonente bi moo tax mu ne wa loom ti daahi bax da najaahi inda sabaahi wa fil masaayi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama saa su ma xëyee am ak mucc rek wala ma gonto am ak mucc rek waroon naa ko ay tagg ñu ne ko tagg yooyu la muy demee mu ni salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati saayi ay tagg la yoo xam ni damay xaaj at mi séddalee ko nga xam ne juróom benn weer yi dama koy julli ci moom yeneen juróom benn weer ma koy tagg mu mel ni bu yamul ci loolu rek mën naa am ñu jàpp ni at mi xaay na leneen lay tagg bàyyi leneen waaye mu dellu wax ni ilan nabi wajjahtu kulla yawmi xidama am daayin asaala law mi nee na bëccëg gu jot damay jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay liggéey yoo xam ne dama koy tàgg mu mel ni bu ca yamoon dañuy jàpp ni xëy na bëccëg rek lay tàgg yonent bi sallallahu alayhi guddi gu mu neex wala mu defe daneen waaye illa nabi wajjahtu kulla layli xidama am daahin ajalan nayli nee na yonent bi sallallahu alayhi guddi gu nekk dama koy liggéeyal ci ay tàgg mooy la waykat ba doon wax naan di bind guddi du neew bu jëm yépp ne selaw mu dem ci pee bu ne xelaw bu bët sété mu ne la wax kon sunu xoolee bëy yooyu dafa mel ni sëriñ bi tagg yonente bi sallallahu alayhi wa day lu mun a ñàkk ci moom loo xam ne da koo jëkk tegoo ko te loolu suñu borom subhanahu wa taala moo ko ko jagleel ala mani rahmanu fi safina bi ànd qadimu sil silmadina neena sunu borom subhanahu wa taala moko xamalon ni yow yaay liggey kat yonent nabi sallallahu alaihi wasallam mu neena ne ko laaj kooku moom moy kan bang koy tag tag yu mel ni xana ko kawe mu ni waaw allah faddalahu qitman wa khaddamahu dahban wa akhara man xannax ji hanada moy ka nga xamni sunu borom subhanahu wa taala moko jox ay ngëneelam jital ko ba faaw te kep ko xamne nak diingal na aw yoonam sunu borom dana ko jëmee ginnaaw allahu faddalahu xidman wa jallalahu wala yaakanu lahu mislun walam yàkkuni nee na mooy ka xam sunu borom subhanahu wa taala moo ko jël jox ko ay ngëneel gënal ko ci ñëpp ba noppi màggal ko ci ñëpp mooy ka nga ni morom musu ko am te du ma masa am loo sàpp wa taq diimu wal xurbu wal ixaar wa yox si dawaa man na xaani bi laa fàttali mooy ka xam ni nee mooy borom raw ga di borom jiddu ga mooy ka xam ni moo jige sunu borom subhanahu wa taala laka sabqu wa taqdimu yaa xayra sayidin dalal waahid qahaari rabbil wara jalaa nee na yow de yaay ki nga xam ne yaay ki am raw gi yaay ki am jiitu gi yow mi nga xam ne yaay ngën ji sang ca fan la rawee ak fan la jiigoo mu ne ko lalal waahidil qahaari rabbil wara jalaal te sunu borom ba nga xam ni kenn ka nga xam ni aji not ja moo tax mu ne ko lil Mustafa inda rabbin naasi martabatan taxuloo maratibu ahli siiti wal mikani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na fa sunu borom daraje joo xam ni moo kawe daraje mboolem ñi nga xam ñoo siiw mootaayam mboolem ñi nga xam ne ñoo am daraja xatamta bi taqdimin ali ya rasulana wa xustal xola ya nasiral xaq bil xaq nee na ko yow yaay ki nga xam ni yaa jiitu ci jiitu ko aji yi mooy aji kawe yi nga sunu borom subhanahu wa taala moo la fa jiital la yow sunu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa xustal xola xaq bil xaq te yow yaay ki nga xam ne yaa làq kawe ga yow mi nga xam ne yaa gañe dëgg ci dëgg wasilati abduwal muxtaaru sayiduna wa huwa lasi man aba taqdimuhu xufidaa nee na mooy ki nga xam ni sunu borom subhanahu wa taala moo ko jiital képp képp ku bañ jiitu googu sunu borom subhanahu wa taala dana ko suufeel sola alayhi lasi ahla maratibahu fawqal maratib fil maadi wa fil aati nee na sunu borom subhaanahu wa yàlla nga julli ci xam ne yaa jël ay daraja am mu kawe mboolem daraja yëpp moo xam daraja yi ñi jiitu la wala daraja yi ñi ñëw la salaa alayhi lasi abda taqaddumahu ala malal ardi turan wa samawaati julleeg sëlmal yàlla nekk ci ka xam ni ak jiitoom feeñ na ci mboolem nekk ci suuf ak mbooleem ñeneet te kaw ñu ko kii nga xam ne kon mooy borom jiitu bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa jox na ko daraja yu kaw yooyu yow noo demee moom mu ne tàgg ko ay tàgg yoo xam ni yu rafet rafet la saaka xiyaarul arabi saaka muniirul arabi saaka sabiiru talabi tabibu ahli saxami nee na kookee mooy tànnee arab ya mooy kii maye aaja ya mooy ka nga xam ni mooy yoonu sàkk wa mooy dog tooru way ràgg yi dem mu ni sali xalaa baabil hudaa naayil madaa móolina daa laysil hidaa maahira daa baabi hulaa wal karam kon loolu lépp da ci wane bëgg ki nga xam ne bëgg ko ndax ki nga xam ne bëgg nga ko ni muy feeñee ci say wax mën mela ya moom la melal wala jikko wala ni ngay waxe di feñal sa tiofel wa salliman alamin zakal makin wal makin sakal mujir wal khamin bi sa sana waxtarami sakal wajid wal majid wa huwa al wal ahid man bi istiqamat li yaqut ila al jinan al munhamid ba nek sakar sul rahadi wa sakar rahbu rahadi wa sakar fazahati sakar sul malhamid dem ba yàgg mu ne buwala si faaxa si waa minal baraaya bi huda hatta bada kat bu soma fi arsikal muasal nee na kooku mooy ki nga xam ni moo kawe kudul moom ci mbindeef baawu turam sax feeñ na nee ca aras mu màgg ma ca mowaay mu ne ko saagal muniiru zagal basiiru loowu usiiru di sa sanaayi kookoy mooy aji leer ja mooy aji bégle ja mooy ki nga xam ni moom laay junj sama yi loo xitaabi bilaa xitaabi wala xijaabi wala xanaay mooy ki nga xam ne moom laay waxal te dama ci am yenn yaraanga te genn kiiraay doxul sama diggante ak moom moo tax mu ne xayral baraaya yaasal masaaya yaasal xataaya safi binaay kon aw moom foofu la maa yem ñu ne ko xayral baraaya bu yamoon foofu rek mu doy sëkk yow mi xam ne yaa gën ci mbindeef loolu mënee su ko weesu waaye sëriñ bi fam tàmbalee saa su tàmbalee ñaare bu jeexalee nga ni li munu ci woon a su ndellu ci jës yaa mun himan xat wa faqaa salli ala man xulliqa wal xalqa faaqa xulluqa kal xalqi wal tusalimi yow mi nga xam ni yaa aji yenkeewal ku kawe ka nga xam ni moo kawe bind ak jikkoo képp ku dul moom wéy di ko melal di ko melal waaye ba muy jeexal gis nga nam waxaat wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan sahara wal mislu xattu lam yura wala yura fi seemi nee na mooy ki nga xam ni moo gën a mat ci mbindéef yi lu mu leen gën a mat xalqan moo leen gën a mat bind wa xulqan moo leen gën a mat jikkoo ci lu feeñ wal mislu xattu lam yuraa wala yuraa fi siyami nee na mooy ki nga xam ne moroomam mësee su koo gis tey deesu ko gis ba mukk li lay xamal ni wala xijaab yi gi nga xam ni mi ngi ci mawaahibu muy amul kiiraay ni ngi koy dëggalee bu demee ba ca biir daanaka kalimatu mu xaatab rek lay jëfandikoo mooy kuñ jàkkaarloon da ngay dégg mu naan ay anta anta suróor yi bidaa safi buróor yi anta habiib Ya man habibi ñu nga anta habibi yow mi nga xamne yaay sama soppe Ya man habibi yow mi nga xamne dan mala may motax mu dem ba ca bir ne antal karimu al khadim dahra udimu fi ka sanay kon ay kalimatu mu xaatam ngay gis mu ko jël mooy ki nga xam dafa jakkaro ay mom nga anta nangam anta nang wala fi ka wala laka yoy day wane ni kon mi ngi jakkaro ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mu dem bari len nuurun asimun yustaraanu bihi laakin isaa lam yàkkun li samsi asfaara loola mi cay wax yeneen gaa baax ya nee weer de am na ay leer gu màgg goo xam ne mën naa leeral waaye bu ñu wax leeraayu weer nee na jant lil xas bi tuuru la daa aynu loo nasarat laakin isaa xawloo lam tan gutus jaaru nee na gattax bantu gudd na lool waaye bu wax guddaayu ga tax nee ay garaba ko sori lil bihri lil biiri waaw lil xas bi tóolu la daa xëy na loo nasarat laakin isa xawloo lam tasburu jaaro yàkkoonu lil biiri maawun taaba masraboo laakinoo min xalijil bahri aqtaaru nee na teen am na ndox mu bare waaye nee na ñu wax bari waayu ndox teen géeju ko fa mooy gaa yu baax yi wala yonente yi nga xam ni jaaroon nee na ba leen tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñëwagul woon rek waaye bi mu ñëwee suul na daraje ñëpp lakkal xilmu wal axmaalu wal xayru kulluhu alayka salaatullahi alal asla nee na mboolem xam-xam yi mboolem jëf yu baax yi mboolem yiw yi yonente bi sallallahu alayhi moo ko lakal fadlu yaa muxtaaru yaa sayidal wara alayka salaamullahi yaa maa sulaat nee na yow yaay ki nga xam ne yaay borom ngëneel yi yow ki nga xam ne yaay ki nu tànn la anta imaamu rusli qad jaa annahum falaa xawfa fil israa'i wal kullu qad salaa nee na yow yaay ki nga xam ne yaay njiital yonente yi ñoom ñëpp de dikk na ñu ni ba ngay dem di rañaan daje nañu yow ñoom ñëpp nga ànd ak ñoom jullee leen wax taramoo wa xaddamoo wa karamoo wa taslamoo tawaajuhan wa assamoo li moo tax mu ne kulli min al axyaari faddulun wa rutbatun waaye wa maakaam ni abdillahi abdullalaal xalit nee na mboolem taaneef yi ku ci nekk am na ngëneel ku ci nekk am na daraja waaye nag kenn melu na doomi abdullahi ji suñ li kulli min assaadaati jaaxun wa xurmatun walakin jaaxal Mustafa al bari yaxtali nee na sang yëpp am daraja sang yëpp am warma waaye nag Mustafa mooy ci daraja mooy ci warma raamal wara nay da fadlil musrihiina lahu wal fadlu hinda rasulillahi xaraaru nee na mbindeef yëpp dañuy dem di sàkk ji ngëneel di ko jëkkante waaye ngëneel moom dafa leen di yoon sama nee ko faax toog fa moo tax mu ne ko labista siyaabal majjidi wal fadli wal xulaa wa fiika min al axlaaqi ma anjasal kulaa yow yaay ki nga xam ne yaa sol yére ngëneel nee ko ngëneel bu fekkoon ay yére la yaa ko làmboo tedd nga bu fekkoon ay yére la yaay ko ko làmboo daal ne ko am nga ay jikko yoo xam ni lottal na ñëpp ñu ni ko jikko yooye mooy yan mu ne ñu nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidun xalilun habibun misluhu lay say xalal kooka mooy yonente mooy ki nga xam ni mooy ngën ji ab jaam mooy sang ba mooy xaritu yàlla mooy soppe mooy ka nga xam ne ndend mustafeeñ najiyun xaribun saakirun wa wa saakirun jawaadun karimun bil makaarim yëf seen nee mooy ka xam ne mooy musalekat ba mooy ka jege sunu borom subhanahu wa taala mooy tuddkat yàlla ba mooy sant kat yàlla ba mooy ku tabe ba mooy ku tedd ka nga xam ni moo làmboo jikko yu tedd ya naqiyun taqiyun saaliyun wa huwa muslihun basirun liman lillaahi bil haqqi yuhsinu nee na mooy ka nga xam ni mooy ku sell ka ku yàlla ka mooy ku defaru ko kay tey defare mooy ka nga xam ni mooy bégal képp koo xam ni ab xolam nooy na jëm ci sun borom subhanahu wa taala nabiyun adibun suu hayaayin muhasabu nasiru liman bil wa sirki yuhlin mooy ka xam ne mooy yerekat ba di yerekat ba di ko am kersaka di ko yaru ba waaye nag mooy ba ci képp koo xam ni dafa weddi suñu borom subhanahu wa feeñal ak bokkaale nasihun bila xisin xalimun muallimu saxiyun bila manin kalaama yu layinu nee mooy ka nga xam mooy ku laabire ka ah, nga xam ni du tërise mooy jàngalekat ba nga ni tey boroom xam-xam ba mooy ku tabe ka nga du ñaaxe maanaam du la jox ba noppi di ko ndamoo waaye kalaaman yu layinu mooy ka ni mooy aji nooy ay wax ja mooy kilewet ka mu dëppoo la ko sunu borom ne woon wala kunta fasan xalisal qalbi lan fa doo min awlika su fekkoon da ngaa naqare deret kenn du nekk sa wet ci gàttal najibun naasibun wa huwa naasibun huwal amirun naahi la si xayra yuddimun mooy ka xam ne nee na moo jaamukat yàlla ba digleekat lu baax ba di ka xam ne mooy tere ab safaan wana kulli si hilmin wasayin wa rutbatin anil Moustapha fii xul ay si loxol wi nee na képp kuy borom xam-xam wala képp kuy borom jëf képp kuy lot na ci jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kullul mursalina ma an taxallamoo minu aadaabal ibaadaati nee mooy ka nga xam ne mboolem yonente yi ci ci lan jàngee teggini jaamu yàlla ni ñuy jaamu yàlla nee na mboolem yonente ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lan ko jàngee fa hansa ma hansa min sirin yu xasu bihi waxaddana fatadaala bil munaajaati nee na la am na ci ay secret yoo xam ni moom dong lan ko jagleel daal ne jigéen a yàlla suñ borom subhaanahu wa taala déeyaale moom te lan moom summa dana fatadaala fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa fa awhaa ilaa abdihi ma awhaa wa xassahu billasi lam yuxsa xattu bihi wa laysa yuxsa bihi maalin wala aati nee na suñu borom subhaanahu wa taala jagleel noo ko loo xam ni jëgleelu ko kenn jëgleelu ko ñi nga xam ni ñoo wéy jëgleelu ko ñi nga xam ni ñoo ñëwaat ci bi daal ne lam yabdu mislu Mustafa Muhammadi siran wa jahran fil baraya samari nee na ku mel ni Moustapha moo xam ci lu nëbb la wala ma dala islaama wal kufra wa bin nasihati li kullin samaha nee na Moustapha xam ni moo ñu andi lislaam mooy xam ni mooy far ak yéefar muhammadun misaaluhu lam yaati fii ma wa abada nee na Muhammad am kemam mësu fee ñëw ci lu wéy tey du fi ñëwaat ba faaw sabbata anna rabbana lam yuridi mislan lahu fa misloo lam yaridi nee na lu ko waral sunu borom subhanahu wa taala moo ko bëgg te wutal morom kon moromam duutu am mukk moo tax mu ne ko muhammadul muxtaaru laa xalqa mislahu alayhi salaam maaman am rukaal hukmi muhammad mooy ki nga xam ne nga xam ne mbindeef mustamel ni moom muy wéy di wane cofeel bi nga xam ni moom la sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallama tax muy mahat mahabatiyal muxtaara sayidina xubbil maxaaniya wal ahliina wal waladaar nee na sopp gi nga xam ni moom la sopp yonente bi sallallahu alayhi moo far ci man bëgg ay màng muy am koom moo far ci man bëgg ay doom moo far ci man bëgg ak njaboot ñu ne ko noo demee moom ci wàllu bëgg mu ne dammi wa ahli wa awlaadin fidaawu lahu xabdan qadiman lahu muskaane li sanada nee sama deret sama njaboot samay doom lépp def naa ko jotu yàlla sallallahu alayhi wa des na di jaamukatu yàlla tey liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mahambarun sikruhu unsi wa mafrahati wa nuuru xalbi wa ahdaayil wara xalqihi wa fi matihi jaawastu kahban wa hassana nee na gërëm naa suñu borom wa taala gërëm naa yonente bi sallallahu wa sallam takk yi nga xam ne moom laay takk yonente bi sallallahu wa sallam nee na naa ci kaxab jéggi naa ci xasaan maa leen ca raw fuuf dañuy gis ba muy door a tàmbali mun a wax wajhal maqaami maqaamal murtada anasin fi xidmatin wa ka xasaanin asal asin xarani na nga def sama maqaama mu toll ni maqaamam anas ak maqaamam xasaan waaye gis nga li mu wax fi wa fi matihi jaawastu kaxban wa xasaana ñu ne ko anas nag mu ne bara anil xuduusu min kulli danas wa inda khairil xalqi jaawastu anas sunu borom subhanahu wa taala setal na ma ci bepp tilim te yaron nabi sallallahu alaihi wasallam jéggi naa fa anas mulkul xalil baqi qadim jahana li asna qadim liman loo fadl mu yadoom nee sunu borom subhanahu wa taala mi nga xamni mo ay aj di aji def yi moo def ma gën kawé kawe ci tàggkat yi ñu ne ko gannaaw lii lepp nga wax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam sa mbind nan la demee ci yonente bi mu ni yasru rasulallaahi xatti bi mawlid yi yadoomu lanaa bisran yafi xayra mawlid yi nee na sama mbind yonente bi sallallahu alayhi wa sallama da ciy bëgg mi daa di waaqu laami li rabbi tawajjahat bi xattin yasurul muntaqa nihuma sayidi nee na samay daa ak samay xalima jublu na ci sunu borom ci mbind moo xam ni day deglo yonente bi sallallahu alayhi wasallam li khayr al baraya min kalami busaratun wa li taxsiisan takhsisan bi nafs tahtadi neena samay khalima yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ci bëgg tay wamatal ma ay jagna yo xamni sama bakkan ci lay jindiko farina khayr mursali bi xattiyal muasali nee na ngën ji yonente bi sallallahu alayhi wasallam day bëgg ci sama mbind mi nga xam ni loolu lemal la nga xam ni mbind mi nee na dafa neex ba saf lem te loolu lu wér a wér la suñ ko xoolee ci ñi koy jàng neexit yi nga xam ni moom lañ ci yëg gannaaw ñoom ñu ko tim di ko jàng rek asay yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ni moom lañ ko jëmalee ci moom fariha xayrul basari di xattiyal mu basari ngeen ci mbindeem nee na day bëgg ci sama mbind mi nga xam ni day bëggalaate yasuru xayra mursali xatti maayil kasali nee na sa mbind mi nga xam ni day ak tayyeel day bégloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yasuru ahmad al makkiyin xatin la si looru koon sama mbind day bégloo yonent bi sallallahu wa sallam mi nga xam ni mooy kum dëgëral kan yasuru xayral mursalin maa sihabil ajmalin wa alihi mukammalin ixdaamoo bi xalamin nee liggéey gi nga xam ne moom laay liggéey yonent salaay salama ci samay xalima nee na yonent bi da ciy bég saxaaba yi da ciy dañ ciy bég waa kër yonent bi yëpp dañ ciy bég maraktu afdalal basar maa la yasaalu min busar wa yubnahu liya nasar wa xaadani bil karami nee na moom loo naa ngën ci mbindeef loo xam ni du dañ di ca bég mukk te mooy mbind mi nga xam ni moom lañ koy bindal ñu ne ko lii lépp nag bi nga defee la yonente bi ana ci amee mu ni bokk na ci li ma ci amee muy lii waa yi ajjuru jamil fi xidmatil maayi na xumool fa xiddami lu oo tamil mu baran bi alami nee na yoolu aji rafet yi mu yoolu suñu borom subhanahu wa taala na ma ci liggéey gi nga xam ni moom laay liggéey yoon sallallahu alayhi wa sallam rabaahiya mattuhu lillasi mattuhu maxnamu wa inni ilal jannaati bil bisri moom xamul nee na sama bénéfice mooy takk ki xam ni moom laay takk yonente bi sallallahu alayhi wa te bu ëllëgee aljana dan ma fay xéewal ci ay mbégte isa katabtu tasamal muxtaaru nee saa su ma bindee yonente bi sallallahu alayhi day muuñ wa kullu haamin tuwaa fii nii mawaahiboo bal kulla waxtin yuwaas fii nii bi minnaati nee na at bu nekk rek yonent bi sallallahu alayhi wa damay indil ay mayam daal ne aha ah, du at mu nekk sax yépp waxtu la damay séddalee ay xéewalam ñu ne ko waaw lii moom kon xanaa yow danga ko daraja woo mu ni déedéet dama koy sante suñu borom subhanahu wa taala sa kartuwo isqasani bi xidmatil maa ngi sani sa xidmati bil xandali loo wa fakk nee na maa ngi sant suñu borom bi nga xam ni moo ma jagleel may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hamidtu illaahi jarani ila xidmatil mujtabasi football nee na maa ngi sant suñu borom mi nga xam ni moom xëcc ba ma nekk liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hamidtu illaahi jarani ila xidmatil mujtabasi su moom hamidtu illaahi bi sukkurin lahu ala jas bi xal bi nasir nee na ngi sant suñu borom ci cant goo xam ni li nga xam ni ci la xëccee sama xol ngir ma bëgg yorante bi sallallahu alayhi wa ak lu baree bari loo xam ni li jot a jukki lu néew a néew la su ko defee ku mel noonu bu nu fi dajalee ci guddi gi mel nii xëy na njariñal guddi gi yàgg nañ cee wax waaye neewoon na laylatul mawlid nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi tahabi wa toori si taasumi nee na moom guddig juddug yonente bi sallallahu alayhi mooy guddig farug coona ba mooy guddig faru sikki sàkka ya mooy guddi gi nga xam ne ci lañ laabee ci ay bakkaar bi han najaatu wal falaa maa suróor wa najaa bi han rabaa wa salaa maan di faahi nekk xami nee na mooy guddi gi nga xam ni ca la mucc ga nekk ca la mbégte ma nekk ca la réussite ga nekk muy ya daal ne ñu ne ko kon ki nga xam ni moo koy màggal ana yan njariñ la ca am la ca a am mu ni tax simoo bi sunnati yaquduna lil jannati bis diyaadul minnati li muxlisin muasim nee na màggal guddi Yonent sallallahu alayhi wa ci sunna teg ko ci sunna jaar ko ca fan war a jaar yaquduna lil jannati dañuy wommat jëmee ñu ajjana te jullit bu ne loolu rek lay wër ajjana moom ku xas dem maam ñàkkatoo dara la bëggoon lépp am na ko am nga ko waaye biis di yaadul minati li muxlisin maase bi dem ajjana doy na sëkk waaye nee na foofa fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musarafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami فإنه كمن عذر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير ورام فهم nee na képp koo xam ne dund na guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël alalam def ci donte ab dërëm la waaye nag bu mu ko yàqatee na def loo xam ni jaamu yàlla ya dana ko mën a jaamu ko mën a jaamoo yàlla ndax nee bu jeg yàq guddee yàq am na lu ci suñu borom subhanahu wa taala waxoon suñu borom moo ne wa kulloo wasraboo wala tusrifoo ndax inna laa yóbbul musrifin lekk leen te waaye nag bu leen yàq ndax ak yàq suñu borom bëgg ko nee na ki ko defee noonu nga xam ne ak yàqu di jëmu ca doonte ab turam fa innahu kaman hadar mel na ni ku teewe yow ma xun nay ni wa bisu xun nay ni muy xareb xun nay ni te muñ yow ma battalin wa nasar xayra waramu fay bi mel na ni teewee na badar dimbali njool màkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñaari xare yooyu dafa nekk ay xare yoo xam ne yu mett la ci yonente bi xare ba dara xam nañ ko doonte jullit ñaa gañe waaye seenu dogu ak seenu ngëm moo leen taxoon a gañe ak jamono ya nga xam ni moom lañ ko doon def nga xam ne dañoo ànd na koor mettit ya ya nga xam ne ñoom lañ ca rey nga xam ne dañuy dem boo xam ne seeni fuurit ma doon génnee ci seen fas yi moo kawe jaamu yàlla wàllu yi ba sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu doon sàkkoo bokk ci ñoom ñu ne la nag boo màggalee jib guddi juddu Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam da nga am dara ju toll noona la ko mat la yow ma xunnay ni dafa nekkoon loo xam ne it lu métti woon ci jullit yi wa yow ma xunnay ni is ah jabat kasratu ko falam tuxni ankum sayan nee na yow ma xunnay ni ba leen seen bariwaay ba yéenee seen bariwaay boobee mujj leen jariñ dara wa daaxatil ardu bi maa raxumat mujj na suuf si xat lool ci yéen ak li suuf si yaatu yaatu yaatu kon ay xare la yoo xam ne yu mettee mett la ñu ne la nag boo màggalee guddi gi da jot ca yool ba fa man yuhasim mawlida nabiyina baabil huda fala yuhasabu xadda fax tariman wa hasini nee na képp koo xam ne màggal na guddi gi yonente bi sallallahu alayhi boo lëgee de su ko xisaab te xam na ni xisaab donte kiñ ko def ba noppi mu dem aljana am na aw yiw waaye nag kan ko deful mooy dàqale misaal boo jaaree ci këlib bi ñaari sëfër jiitlante ñu ërite kenn ki bàyyi kenn ki ci mu jàll yow ñu téye sa permis nga yendu ca naaj wa wala nga yendoo fa lu ne maslaa ka jàll wonte yow man ngaa ak waaye ka jàll moom moo la gën a nekk ci ab nooflaay nee na nag màggal guddi Yonent sallallahu alayhi wa sallam day waral bu ëllëgee duñ la xisaab ihyaawu mawlil basir yaxmil xiyaara wa duyóor fii si faaw listoor li kulli haadin yantami nee na màggal guddi Yonent sallallahu alayhi wa sallam day aar jaboot bi tey day saafara ay xol képp koy ay bindu kon yàlla sunu borom subhaanahu wa taala saafara sunuy xol tey daraja ji nga xam ni moom lañ diggee ci guddi gi yàlla nañ ca jot wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin